kon jeex na ki nga xamante ne mooy Cheikh Omar Diagne def benn conférence de presse léegi di alerter Macky sàll ci dossier Ousmane Sonko euh, ak Adji Sarr di ko wax ni ko euh, lu bari euh, yow la ko yàlla jox pouvoir bu bari la ko yow la ko yàlla jox te dossier bi xale yi sax xam nañ ni amul dara mu nekk di ko alerte tey ñu baree bari seetaan nañ ko nii ban commentaire ngay def ci alerte boobu moo ko wax. ci dossier bi sa commentaire waaw. Cheikh Omar Diagne maa ngi ko ñaanal tawféex. waaw ma sa xam Cheikh Omar Diagne xam ne ca alerte la dëkk. ca alerte la dëkk alerte boobu muy def nag moo tax muy dem kasoo ko ñëw alerte boobu moo tax muy dem kaso ak di ñëw li mu wax rek la war a wax te ñi ko war a wax ñëpp dañu war a génn wax ko nii mu ko waxee ndax mooy dëgg ndax gis nga bu ñu xool ba taal réew mii ah ay billaahi fa ngeen foog ay ak fa ay way jëm duñ bokk. Mm-hmm. moom même loolu moom loolu la wax sax. nee waaw waaw nee na da leen di alerter pour maanaam euh, coow bañ am ndax lii mën naa doon kaawoo ci nguur. waaw waaw la wax moom waaw. 17 mm-hmm. millions sénégalais yi. Mm-hmm, Macky Sall amu ci 1 million personne. kooku xam na ko moom. billaahi wal kitaabi bu amoon 5 millions. police ak gendarmerie. 10 euh, millions yi citoyens sénégalais yi rek. sans police sans gendarmerie. Hmm. procès Macky Sall du jàll. kon na xam ne procès am du jàll police ak la yaakaar procès ba du jàll te bu bëggee taal réew mi nag jur sax mu wax troisième mandat na wax ne damay jàpp Sonko